ci njabootu sëriñ Dame Abdou Khadre Lo la imam bi bokk moom mooy taawu Serigne Moustapha Lo nekkit sëtu Serigne Touba Serigne Bassirou Lo ngi gane àdduna Daaru Salaam Kayel am na juróom benn fukki at mu di kilifa boo xam ne ci këru diine la màggee ci ñaari wàllam yëpp. sëñ Bassirou moo ma tudd tuddee ma boppam léegi sama waajur bu jigéen mi tudd Soxna Astou Mbacké waajuru góor mi ngi tudd sëñ Moussa Abdourahmane Dooy ndax ki nga xam ne mooy sëñ maam muy sëñ Daam Abdourahmane moo jàngal ñu bari ci njabootu sëñ Tuubaa gi mooy soxna muslimatu moo sëñ Murtala ñoo bokk waajur wu góor ak bu jigéen mu doonoon jigéen ju jàmbaare nag yoo xam ne bari na lu ñuy def ci jamono ji fi mu toll nii te fekk na moom jiitu woon xelam jiitu woon na ci doon na koo xam ne bàyyee wootoo daanaka ci moom lañ ko njëkk a gisee siiw na itam ci ne ku xerañ loon ci ci togg lépp li aju ci xam-xam dafa mës a yitteel Serigne Bassirou Lo àddunaam yépp mu jagleel ko jàng ak ut xam-xam. nitu xam-xam lay nag loolu moom laa seede ci Serigne Moustapha Lo ku amug taalibe la. moom mii ba muy tuut tànk maa nga dar ma toog nii mu ñëw sama néeg nii def yëf yi ba nawet di wëndeel ni di fa ci ruum bi. moom mii Serigne Bachir Lo bu jàgg mu jóg na ma seex ndaam ma ne ko loo mu ne ma doo may sa kaamil ma ne ko déedéet mu ne ma lu tax doo ma ko may. ma ne ko sëriñ bu mënut a jàng alxuraan du ma ko may kaamil loola jom la ci moom wattewu ko dem jàng ba mu wàccee alxuraan woo moor kan ne boo demee neel Cheikh Ndao na ma jox sama téere kon xam naa ci moom bëgg alxuraan xam naa ci moom jom. biñ tolloo ci mën a jàng alxuraan kër sëñ Soy bu lañ la yóbbu foofu lañ njëkk a dare waaye fa noonu ginnaaw bi nag lañ ñëw kër sëñ Mor Mbaye si ci sëñ Moustapha Guèye foofu lañ jàngee ba mokkal alxuraan bind bind fa ñaari kaamil ginnaaw bi nag ñu ñëw ñëwaat Touba ci kër sëñ Abib foofu lañ jàngee moom def fa ay at soog faa jógee nag dem Arabie Saoudite ñu ngi nekkoon Riyad ci jaamiatul imam Mohamad ibnu Saoud foofu lañ amee licence ci littérature arabe bi mu amee ay lijaasam yu njëkk ci kalaama arab la ko Serigne Mourtala Mbacke dénk institut Al Azhar ba ca Ndar ci diiru ñaari at 2001 mu bàyyee ko fii dem Amérique mu di tukki bu dajeek ñu taxawal kër Serigne Touba ca New York. ajjuma ju njëkk jee sëñ Mourtala moo ko jiite ajjumay ñaareel ji ñu noddu di ko xaar mu yoon am ku mu yabal nekkoon muñ ko ñu wax Seex Mbaj nekkoon naa dem jiite. bi noppee mu sëñ Moutala woo sëñ Mamor wax ko ne ko na wax na wax mbooloo mi ne leen man na fi bàyyi ngir moo war a nekk imaam bi foofa foofa nag 2001 ba 2013 foofa laa nekkoon. ci atum 2013 bi si Sénégal dellu ci tool yi ak ci daara ji. mu nekk ku sopp sëriñ Fallou mbakki firnde bi mooy nataal bi mu def ci biir kër su weesoo wolof Serigne Bassirou Lo dinay faral di làkk arab ak anglais. jiite na julli ajjuma bu njëkk ci jumaay masalikul jinaan ci ndigalu sëriñ Muntaxa Basiru Mbàkke xalif général kullu murid liñ jot ci ndigal ci sëñ bi dafa am xutba boo xam ne sëñ Fàllu moom la ubbee woon jumaay Tuubaa moom la wax ne nañ ci barkeelu bu noppee nag teg ci suñu waxi bopp li ma li ma ci jot a préparé sama bopp moom mooy lu dëppook bis bi nga xam ne moom la ñuy def tey lan lañ ci war a jàngate ak yitam sëñ Tuubaa mi nga xam ne moo waral jëf yi yan étape la jaar ci ndakaaru ak li ci juddoowaat weex daal lay sol ndax am na am na mbubb moo xam ne sëñ mut na sëñ bi ci boppam moo nu ko jox maanaam ci dal ak woyof sëriñ Basiru Lo ñaan na taalibe yi ñu dalal gan yi dal di def bis bi bis bu kenn dootul fàtte